بخدمة القوم حب الأوهديات اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل حقدة من لساني يفقه قولي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi yéen mbokki seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacke moom Serigne Bassirou Anta Niang moo del siwaat ak yéen ci seen jotaay bi ñuy wax almajlisu suura te muy am dimanche bu jot bu ñetti waxtu ak genn wàllu jotee ci seen rajo bi di rajo Xassida Online muy émission boo xamante ne dafay fësk yéene di waxtaan ak yéen di jokkoo ak yéen ak i xalaat ci li nga xamante ne nun ñëpp noo ko bokk muy liggéey bu tedd bi ni ma koy waxee toujours rek te Cheikhul Xadim bataleñu ko ñuy def dimanche bu jot ñu tànn ci benn thème di ko waxtaane ak yéen kon ñoo ngi nuyu mboolem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy bàyyi xel yépp te nek bitim rew nek fi ci senegal ak fuñ man di nek rek ñi ngi leen di bayyi xel di wax ne lim ñepp dañuy jafe ndax dooma adama yépp dañuy suñuy soppe di ñu bayyi xel waaye di bayyi xel seen jotaay bi di ko topp ci rajo bi di ko topp ci youtube bi di ko topp ci facebook bi di ko topp ci mboolem réseaux sociaux yi nga xamante ne ñoo ngi daw yépp mbokk yi di ko topp di ci bàyyi xel li nga xamante ne wax nañ ko te muy lu baax ñu di ko jariñoo li ñu wax te muy suñu njuumte di manqué teg doomu aadama yi ñu di ko bàyyi xel ñoom di ko wacc fële te jël la ci am njariñ rek di ko jariñoo kon barakallahu yal na leen yàlla barkel yéen yépp ak fu man di nekk rek di ñu diglu suñu tuddee sëriñ Modou mi ci liggéey bi rek nga xamante ne wax dëgg yàlla guddi ak bëccëg sëñ Modou Mbaye Thiam waxtu nekk disponible na pour ànd ak ñun ci liggéey bi rek dana mel ni tudd nañ mboolem auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ci biir yëpp. waaye di ndokkeel ñëpp ci bis bu tedd bii nga xamante ne ci lañ nekk mooy bisu Kazu Rajab di bis boo xamante ne jërul ñu leen ci fàttali dara ndax ay at waxtaane nañ ko kenn ku ci nekk xam na li ci amoon muy rañaanum yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam kenn ku ci nekk xam na li ci yàlla jagleel ñu muy suñu jëmm ju tedd jee di Cheikh Mouhamadul Fadil mi nga xamante ne ci la gane àdduna suñu borom baaxee ñu ko ni ma ko daan waxee toujours rek nga xam ne suñu borom moo ñu ko ci defal li ñuy wax daanaka tuddee ko buuñaa nga xam ne bénéfice la boo xamante ne tonaloo joo xamante ne suñu borom moo ñu ko tegal boole ñu ko ci kaso kon yàlla nañu ko yàlla fayal te barkeelal ñu ko te taas ñu ci barkeem bis biit nga xam ne mën na lépp. bala ñuy dugg ci lenn yalla nañu ci suñu borom saafaral <clears throat> boorem jangoro yi nga xamantene tital na aduna bi yépp te muy jangoro ji ñuy wax coronavirus nga xamantene mbolem aduna bi yépp la tital ndax ku nekk dal na ci sa kaw fenn fu ci nekk ma nga fa ba kenn xamatul looy def ba bam bëgg jaxasi sax julit ñi nga xamantene am na ci julit ñoo xamantene dem nañ ba ragal guñu ragal tax sax seeni pas-pas loolu nag yàlla ko suñu borom saafara te génne ko fi te dàq ko dàq goo xamante ne duutu fi am ba mukk di barkeeloo ci ak ñaan goo xamante ne rek sëriñ bi moo ko joxe woon ci jamono yi nga xamante ne eh, naam bu fekkente ne sëriñ bi def ko it moo ko joxe woon ci jamono yi nga xamante ne piste bi amoon feebar yu fi ma sam rek daana jox ay kilifa ñu di ko ñaan kon ñaan googu yàlla nañ ci yàlla taas eh, eh, mbokki auditeurs yi it ci bari xarit yi ñi nekk bitim réew yi nekk ci biir réew mi ñu ci bari yónnee woon nañ leen ñaan gi euh, kenn ku ci nekk su fekkee yaa ngi ko yor ba léegi rek ci sa whatsapp bi ñu la ko yónnee woon euh, nga di ko def suba ak ngoon wala waxtu woo amee jot rek say njaboot it bu fekkee mënuñoo jàng nga di ko jàng ñuy dégg di baamtu wax la ngay wax ñu di ko wax ndax ñaan gu am solo la goo xamante ne euh, ndax feebar bi ni may waxee ne ñaan rek moo ko fi dindi amul leneen lu ko fi mën a dindi ndax ñëpp xam nañ ne médecin yi gën a aay ci àdduna ñoom ñëpp dem nañ ba tële ci kon kenn ku ci nekk xam na ne bila balaa la boo xamante ne suñu borom moo ko wàcc ci kaw jaam ñi balaa nag bu ko wàccee ci kaw jaam ñi jaam ñi dañuy toroxlu delluwaat ci yàlla rek su ko defee suñu borom wàccel leen balaa boobu ñaan gi mooy bismillahi rahmani rahimi allahumma inna zunubi azumat wa jallat wa anta sayidi wa ilahi ahsamu wa ajyalu اللهم أحني على رداك لأرديك حتى ترضى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين ويا كبير يا متعالي ويا الجلال والإكرام اللهم زل على سيدنا محمد وسلم وأدم علينا نحم واصرف أنا نقم والرجس والعذاب wala إنك أنت الأحسن أكرم su ko defee ñaan la gu am solo goo xamante ne rek mbokk yëpp kenn ku ci nekk yónnee woon nañ ko ci sa whatsapp ku ci jotul tamit buñ noppee ci émission bi rek boo wootee gis na la ko yónnee ci sa ñaan gu baax la goo xamante ne dana tax ab jullit mucc ci mbas mu metti mi nga xamante ne moo am ndax ni ma koy waxee rek jàngoro la joo xamante ne suñ borom rek a mere ay jaamam ndax ay jaamam ñoo def luñ ko ta def ñoo jaar fam leen déglut woon su ko defee loolu nag bu amee suñ borom léeg-léeg day wàcce ay mbugal ci ay jaamam ñooñee su ko ca wàccee nag mbugal ma mën naa dal ci kaw ñëpp amul ku ko deful woon ak ku ko def ndax ñëpp ay bokk responsabilité yi ba tax na ci ñëpp mën naa dal ci ñëpp waaye nag ñu di ko ñaan rek tey toroxlu ci bis bu màgg bii nga xamante ne mooy bisu Cheikh Mouhamadul Fadal yàlla saafaraal ñu jàngoro yi nga xamante ne moom la wàcc ci kaw jaamam yëpp te jaamam ñi kenn attanu ko ci lott ci lool mu teg ko ci seen kaw yàlla na ko saafara dindi ko fëgg bopp ñëpp ba kenn ku ci nekk mën a dellu ci la nekkoon mu mel ni bokk yi seen jotaay bii di almajlisu suura tey thème bi bëgg a waxtaane dafay mel ni daf koy farale Italie waaye farut ci Italie kese nii ñu koy waxee rek joxe misaal ci Italie day dem ba walaabal ci dëkk yi nga xamante ne taalibe sëñ Tuubaa yaa ngi fi murit yaa ngi fi jullit yaa ngi fi dafay dem ba walaabal ci ñoom ñëpp kon kenn ku ci nekk rek na ko bàyyi xel muy bokk yi eh, mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir Italie ñu di leen soññiwaat bu baax a baax a baax mboolem daayira sëñ Tuubaa yi mboolem nit ñu baax ñu nekk Italie mboolem ña fa nekk ñëpp nañ doguwaat fasuwaat tënkuwaat lakk laxasaay takk seen ndigg bu baax a baax a baax ci dimbule mboolem jullit ñi nga xamante ne ñi ci àdduna bi yépp fuñ man di nekk rek ñu taxaw jàppale leen ci jafe-jafe yi nga xamante ne jafe-jafe yu metti la ndax ni ma koy waxee dëkk bi ma ci gën a miin nga xamante ne nekk naa fa ay at di Italie de yi moom wax dëgg yàlla ni koy waxe rek ay nit nañ yoo xamante ne ay nit ñu mën a dalal gan lañ ay nit lañ yoo xamante ne ay nit yu am solo lañ yoo xamante ne ci société sénégalaise bi wax dëgg yàlla euh, li nga xamante ne génn na ci biir Italie googu ñëw Sénégal soo ko génne woon ci Sénégal Sénégal dana tubranke lool bari na fii euh, kër gu fi taxaw goo xamante ne la ko taxawal ma nga jóge foofu ci réew moo foofee bari na fii famille bu lompañ boo xamante ne seen lompañ googee la ko dindi mooy seen doom ju nekk Italie wala mu nekk Espagne wala mu nekk France wala mu nekk Portugal wala mu nekk faneen fu mu mën di doon ci àdduna bi bari na lompañ ñu fi nekkoon yoo xamante ne ñu nekk ci bitim réew lompañ googu ñoom ñoo ko dindi kon ba tax na nun day noo ngi encouragé mboolem daayira Sëriñ Tuubaa yi nekk ci béréb yépp même ñi nekk ci dëkk yi ak ku mën doon association yi ak daayira yi nañu laxasaayu kenn ku ci nekk ci ñoom gis dégg naa sax wax dëgg yàlla am ay communes yoo xamante ne dégg naa ne ñu ngi koy def dégg naa ko fu mel ni eh, Toscana am na commune yu ko fa def dégg naa fu mel ni eh, Novara ñi ngi koy waaj dégg naa fu mel ni faneen Bergamo dégg naa yoo xamante ne joxe nañ waaye moom bu ñu xeeb dara sénégalais ya fa nekk rek nañ taxaw ci société ba fa nekk société italienne ba fa nekk bañ xam ne sénégalais yi kat ñi ngi fi te ñi ngi dund comme ñoom te li ñuy nekk naqari na leen su ko defee kenn ku ci nekk rek commune ba nga nekk nga organiser sénégalais ya fa nekk lu ci waay man ak lu mu mën di doon rek bu doon segub dix euros la it la ngeen man ak lu mu mën di toll rek sénégalais ya fa nekk comité comité ba fa nekk nañ nañ nañ dajaloo toppatoo ko buñ ca toppatoo bind ca boole ca euh, benn lettre wala benn nangam boo xamante ne dañuy wax ne lii fi nekk nga xamante ne yàlla wàcc na ko ci seen kaw ñoom itam naqari na leen te metti na leen te ñu ngi koy àndandoog italien yi su ko defee luñ mën di am rek ñu dajale ko yóbbu ko ca commune ba fexe ba gis sëñ daako yi dimbale leen ko ndax loolu dafay doon loo xamante ne bu ëllëgee daf leen di dimbale ndax nit su nekkee ci aw naqar dañ caa war a ànd ak moom su nekkee ci neexit nga nekk ci ak moom ndax ba ñuy nekk ci aw ba ñuy nekk ci bànneex ñun ñëpp ci bokk àndandoo woon ñoom kenn ku ci nekk di xëy di liggéey kenn ku ci nekk di gañe dara kenn ku ci nekk di mos astuut kenn ku ci nekk di am dara loo xamante ne ca ngay dundal say njaboot di ci dundal say famille yëpp ñoom itam suñ demee ba nekk ci ak jaaxle jaaxle googee ñu nekk nañ ci àndandoog ñoom kon mu mel ni rek ñu ngi ciy soññi mbooleem communes yi ci biir Italie mbooleem daayira sëñ Tuubaa yi daayira sëñ Tuubaa yi niñ ko daan def ah, daayira dafa am lu ko tax a jóg daayira li ko tax a jóg Sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xamante ne moo ko sosoon soññee nañ ko ay yoon yoon ndimbal rek ko doon tax a kon ñoo ngi ñaan daayira sëñ Tuubaa yi nekk ci àll bi jamono yii nu toll wax dëgg yàlla du jamono yoo xamante ne jamonoy dajale xaalis la di ko denc ci banque di ko andi Touba wala nga di ko andi Daaru Muxti wala nga di ko andi feneen ñoom ñëpp dafay mel ni man de sañu ma leen a digal waaye su fekkonte ne sañoon naa leen a digal wala sañ na maa digal kilifa yeneen sañ a digal su ma ko sañoon dama leen di wax ne leen daayira yi liñ dajale lépp nañ ko téye foofu ci àll bi mooy ñi nekk Amérique ñi nekk France ñi nekk Italie seen keesu daayira nañ ko téye foofu italien bu ci soxla ñu dimbale la ci eh, sénégalais bu ci soxla woote nekk fa ndax fan yii eh, gis nga ne liggéey ci bari arrêté na ñu ci bari am na ci ñoo xamante ne fañ doon liggéey am na ko fa feebar ba tax na ñu tëj béréb ba toog di xaar am na ci ñoo xamante ne matériel bañ doon liggéey mënatut a ñëw ci usine ba ba tax ñuy mën di liggéey am na ci ñoo xamante ne am nañ gàllankoor ci biir liggéey ba seen seenu patron wala yooyu dem na am wo mënatut a ñëw am na ay blocage yu baree bari yoo xam ne daal bu ñu ko doon lim wax dëgg yàlla am na ci xeetu foofu kon tey jaadootul ñuy dajale benn daayira di ko yónnee fii di ko yónnee Sénégal wala ñu di ko yónnee kenn wala ñu di ko yónnee lenn dayre yi ci boppam njaboot ga fa nekk lañ fa jot a dajalees ko ñëw nañ ko téye te buñ gisee sénégalais boo xamante ne bolokewu na ah, mënatut a dem mënatu sa dikk liggéey wu te yor fay njaboot ñu seet luñ teg ci loxo bu dimbali ko ko ba keroog crise bi jàll suñ demee ba gisit ay communes yoo xamante ne ay sénégalais fa dëkk te communes ya lott nañ lott goo xamante ne nañ ca yëkkati dara ñu jël ko yóbbu ko ci communes yi su ko defee ñu dimbale leen ko communes yi ñoom itam mën a taxawaat ba bés buñ demee ba raxas jàngoro ji ba jàngoro ji set ñëpp mën a dellusiwaat seenu liggéey ñëpp mën a àndaat ci daayira yi ñëpp mën caa doxaat kon nag li may wax nag euh, day wax joo xamante ne man képp la engagé wax dëgg yàlla ndax euh, man dey daayira bépp boo xamante ne dafay jëm ci Serigne Bassirou Anta Niang wala muy jëm ci kaneen wala muy jëm ci ñoo xamante ne am naa ceeb dogal la leen di wax buñ dajale benn dërëm di ko yónnee Sénégal waaye la ñuy dajalee kas ñëw nañ ko dimbalee njaboot gi tumuranke te nekk foofa ndax njaboot gi tumuranke gi nekk foofa kat jant bu seen tumuranke googu jeexee ah la ñuy dajale lépp nun moo nu yor fii moo nuy dimbale moo nu jàppale moo nu jàppale ci lépp lu ñu war a def kon nag su ma sañoon tey sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi ci bitim réew sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi ci diaspora bi lépp li ñuy def nañ ko téye eh, dajale ko ndax wax dëgg yàlla ja guddi yi ñu toll ba keroog feebar bi jeex da fa gis tumuranke goo xamante ne bu ci sénégalais yi taxawut lool lool nga gis tumuranke gu metti ndax sénégalais yi ña nga faak seeni soxna ña nga faak seeni doom te xam nga it euh, wax dëgg yàlla bu fekkente ne tey jaaykat bi la mu xamee bu fekkente ne liggéeykat bi la liggéeykat bi lu bon bon tey ak lu état bi xaw a néew néew doole rek lu bon bon xëy na suñu borom mën na koo suturaal ba di ko jox xamante ne lum tuuti tuuti dana ci mën a def ay SPCM man caa def am nduggam waa këram di ko lekk ay jabootam di ko lekk même bu fekkee amul lu mën a yónnee Sénégal waaye jaaykat bi nga xamante daf doon nekk ci mbedd bi nekk ci marché yi nekk ci géej gi di yëngatu ci dara tem boloke foofa nga xam ne nangootuñ ku génn sa kër wax dëgg yàlla kooku it fii ñu toll nii fi la sénégalais yi taxaw fii ñu toll nii fi la daayira yi fi lañ sot fi lañ itteewoo daayira yi dëgg dëgg ñu taxaw jël seeni responsabilité kenn ku ci nekk commune ba nga nekk ñu recensé sénégalais yooyu nga xamante ne dañoo ñàkk seenub liggéey ci biir feebar bi wala ñu doon jaay su ko defee ñu taxawu leen ba kenn ku ci nekk tey buñ la joxul xaalis boo yor ci sa loxo it ñu organiser ko ba nga xamante ne wax dëgg yàlla ah, bis bu nekk wala semaine bu nekk danañ mën a dem ci supermarché yi def ci ay dugg def ci ay espèces yoo xamante ne sénégalais yooyu boole ko yu ci seen kër étrangers yooyu julit ñooñu bolewu ci seen kër italiens yooyu bolewu ci seen kër buñ ko yemale sax ci sénégalais yi kese waaye même italiens yi nga xamante ne ñu ngi ci seen biir kër te mënuñoo génn te ñoom it ay desukkupaatu lañu woon yoo xamante ne seen desoccupation jeex na liggéeyuñ defuñu dara ñu man di jënd ay ndugg ku mel ni kalaasu sëñ Pape Demba ñoom gi ku mel ni kalaasu sëñ Ablaye Diop ñoom gi ku mel ni kalaasu sëñ Ibrahima Ndiaye ñoom gi ku mel ni kalaasu Pape Vieux ñoom gi ak ñoom ñoo ñëpp war nañoo taxaw tey organiser wu ba xaalis yi nga xamante ne jot nañ koo am ak as néew ñu téye ko ngir mën cee dimbale njaboot gu lottu ga nekk foofa wax dëgg yàlla moo gën di ko wecceeku di ko def ay daayira di ko yónnee fii Sénégal te Sénégal xëy na àgg guñ ci situation boobu dëgg la réew mi ñu ngi ci feebar bi waaye nag situation bi nga xamante ne moom la italien yi ag dëgg-dëgg situation boobu Sénégal àggagu ci lu bon bon nit ñaa ngi am luñ dunde lu bon bon nit ñaa ngi mën a doxi seeni soxla naam bu fekkee feebar bi am na fi lu bon bon am na ci yu bari yoo xamante ne ubbeeku ni ci réew mi ci nit ñaa ngi koy def waaye noonu it la walaa bale ci Amérique walaa bale ko ca France walaa bale ko ca feneen foo ci dem rek da nga fa fekk ay sénégalais yoo xamante ne sénégalais yooyu ah, feebar bi bloqué na leen waaye da nga fa fekk ay naar da nga fekk ay jullit da fa fekk même ñu duti sax ci dëkk ci réew ma ñoo xamante ne feebar bi bloqué na leen blocage boo xamante ne su ko defee rek leen bàyyi xel bokk yi day doon loo xamante ne lu am solo lay doon loo xamante ne ah, ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel seet nu ñuy def ba mën a ba mën a saafara jàngoro yooyu su ko defee nit ñëpp mën a dellusiwaat ci jàmm kenn ku ci nekk mën a tege xam naa thème bi moom tey nekkul thème boo xamante ne dañ naan dañuy jël rek nangami minute di ko waxtaanee dañuy continuer di ko waxtaanee ba ba keroog euh, waxtu wi ñu ci may rek liñ ñu may ci waxtu jeex kon sëñ Modou Mbaye su ko defee rek thème la boo xamante ne ñëpp ko bokk ndax dañ koo ubbi woon rek loolu muy benn entre parenthèse boo xamante ne ci lañ war waxtaanee bëgg cee soññi taalu bi yëpp su ko defee kon sëñ Modou Mbaye Thiam dañ lay ñaan rek yow mi nga xamante ne yaay àndandoo ñun ci liggéey bi te nekk ci machine yi nga bàyyil ñëpp it su ko defee képp koo gis rek tem wóor la ne mën na cee dugg mën na cee joxe ay xalaat tamit xalaat la bu ñu amoon rek boo xamante ne dañ ko doon joxe su ko defee nga bàyyi ko mu dugg ñu continuer waxtaan ba ba keroog heure bi jeex su ko defee ñun ñëpp ñu wax ci suñu xalaat ndax lu tem boo xamante ne tem bu ñuy bind la wala nangam lu teew ci suñu xel rek te nekkoon ci réew mi di fi dund ñu xam li fi xew su ko defee ñu bëgg cee soññi taalibe yi nga xamante ne ñun ñoom moom lañ bokkaloon kër Serigne Touba moom lañ bokkaloon di julit taalibe El Hadj Malick yi taalibe Tiwaawoon taalibe fu mën di doon rek te nekk ci biir réew yooyu ñu bàyyi xel ci ne eh, lii am kat ñëpp a ci war a jàpp du loo xamante ne dañ koy bàyyee benn état rek wala ñu bàyyi ko ab gouvernement wala ñu bàyyee ko nangam wala ñu bàyyee ko niti kese waaye loo xam ne lu ñëpp war a jàpp la kon su ko defee rek sëñ Modou ah, boo tijjee rek Euh, ku bëgg a wax ku bëgg a joxe xalaatam rek su ko defee ñu bàyyi ko mu joxe ci ay xalaatam euh, ba ba keroog waxtaan wi nga xamante ne moom lañ di seq ak yéen euh, sottante xalaat gi su ko defee ñoom ñëpp ñu xalaat ci kenn ku ci nekk bàyyi ci xel su ko defee it association sénégalais yi tamit ñoom itam génn taxaw génn taxaw taxaw ndax ñoom xam nañ fuñ mën a jàpp tey am na ci jëmm yoo xamante ne liggéeyuñ waaye mën nañ leen a protéger tey jël leen def leen ay volontaire ñu dem Croix-Rouge àndandoo ñoom liggéey ñi dem ñi ñi dem Koroco Roso ñi dem faneen Poronto Soccorso kenn ku ci nekk rek fa nga mën a wax dëgg yàlla eh, Italie soxla woon na la fa eh, bu dee France it France soxla woon na la fa kenn ku nekk fa nga man ci sa doole rek ñu protéger la su ko defee nga dem jàppale leen fa te xam ne mbirum yàlla la mbirum suñu borom la mbugalum suñu borom la moo xamante ne mbugal mi suñu borom a ko wàccee mbugal mi suñu borom wàccee nag duñ di seetaan ay loxo ndax. tey bo def foofu ci daayira sëñ Tuubaa yi am na ñu mën a dajale man nañ caa dajale dimbalé ci nit ñi am na ñoo tay. ne am nañ doole jo xamante len ab liggéey téyeetu leen tey mën nañoo sol mbubbum crocorroso mooy ñi nekk ci croix rouge wala ñi nekk ci pronto soccorso tay dem di leen jappalé ci maladie dem di leen jappalé feneen ñu protéger leen am na ñu man loolu am na ñeneen ñoo xamante ay kilifa la ñek ci biir dëkk bi wax dëgg yàlla man nañ ubbi groupe bi whatsapp yi su ko itam di joxe ay dolli dolli di joxe ay ay jukki alquran yoo xamante ne tey mën nañ koy tasaare ci biir réew mi tey ku mel ni Serigne Fallou ñoom ku mel ni Serigne Cheikhouna Mbacké ñoom ku mel ni Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ñoom ku mel ni ñoom ñooñu ñoo ñëpp tey mën nañoo fexe ba wut a groupe boo xamante ne groupe bu fanweeri nit la groupe bu whatsapp boo xamante ne fanweeri nit la fanweeri nit yu mën a jàngal Alxuraan jàng gu su ko defee ñu tasaare leen nga xamante ne Eh, bu buñ nee xa Ibrahima Ndiaye jëlal eh, jëlal jukki bu njëkk bi kay jëlal jukkim ñaareel bi kay jëlal jukkim ñaareel bi su ko defee ñu tasaare kaamil bi mu jeex ñoom ñëpp ñu ko buñ ko jàngee kenn ku nekk yónnee message ne kaamil bi jeex na ñu xatmu ko ñaan feebar bi jóge fi di ko continuer di ko répéter di ko def di ko def ba keroog mu jeex ku mel ni sëñ Ablaye Diop ñoom mën nañoo gudd mën nañoo mën nañoo yor mbirum mbirum xasida yi nga xamante ne tey mën nañoo jël tànn ay xasida جسب القلوب موايب نافي ربي بما يسره اي قصيده مطلوب الشفاء وكان حقا تحفه المتدرين اي سندي di ñoom itam tànn ay xasida yoo xamante ne ñoom itam lu bon bon danañ wut groupe fanweeri nit boo xamante ne lii rek ko jox coronavirus rek ko tax a jóg feebar bi rek ko jox muy balaa bi su ko defee ñu jël xasida yooyu séddale ko diw sàngam xasida sàngam diw sàngam xasida sàngam diw sàngam xasida sàngam ndax man li li ma gëm mooy feebar bi docteur du ko faj man loolu laa gëm xaw ma ñeneen ci des luñ gëm mais damaa gëm ne feebar bi docteur yi dañ ciy def rek seen kéemtalaayal kàttan waaye du feebar boo xamante ne docteur faaw rek bokk yi dañ ciy boole ñaan yi faaw dañ ciy bool toroxlu ci yàlla xamal ko ne ko tooñ nañ la xamal ko ne ko ne ko wàcc nañ wàcc nañ li nga ñu doon digal te dara taxuñu ko def lu dul gàtt am xel ak néew kàttan ak néew gu néew doole moom rek moo tax ñu tooñ la kon tooñ gi ñu ngi la koy jéggulu bu jaam ñi toroxloo ci kanam suñu borom rek suñu borom dana wàcce dana wàcce ci seen kaw te dana xam ne jaam yi attanu ko te dana leen ko teggeel ndax moom bu leen ko teggelee du ko wàññi dara bu leen ko tegee du ko jariñ dara kon nag mën na leen ko teggil seen kaw ba mu woyof ci seen kaw te it faaw mu doon loo xamante ne kon jullit ñëpp dañuy wëlbatiku toroxluwaat wëlbatiku delluwaat ci suñ borom wëlbatiku wéetalaat suñ borom wëlbatiku dellu ci kàttanu suñ borom suñ ko defee rek suñ borom dana leen saafaraal li nga xamante ne moom mooy jàngoro yëpp kon su ko defee rek euh, sëñ Modou euh, boo boo tijjee jant boo demee ba tijji euh, ba ba tijji ko rek mbokk mu bëgg a dugg nga bàyyi ko mu joxe ci li nga xamante ne moom mooy xalaatam ndax ah, ndax ndax loo xamante ne bokk yëpp a bokk loo xamante ne jullit ñëpp la bokkoon kon tey jullit ñi war nañu niñ doon joxe exemple toujours rek eh, nañ continuer di joxe exemple noonu ndax réew mi kat wax dëgg yàlla bu dee foofu ci Italie bu dee foofu ci Amérique bu dee fu mu mën di doon ci réewi tubaab fenn fu ci nekk nag wax dëgg yàlla yaatal nañ ñu fa bàyyi nañ ñu fa ñuy jëndi kër di jëndi këri Serigne Touba di defar ay béréb di dajaloo di di di liggéey di man di yónnee suñuy njaboot kon buñ nekkee ci ak jaaxle nag jaadu na mbooleem askan yépp kenn ku ci nekk ubbi sa bopp kenn ku ci nekk ubbi sa xol ñu taxaw jàppale leen ba kenn ku ci nekk seen saafara yi tegou foo xamante ne nañ ko bëggee woon noonu ko doon amee te ñun jullit ñi mën nañ leen a dimbale ci bare bare ndax toroxlu googu mën nañ koo def te defaale leen ko man nañ ko def te defalee leen ko ndax nun xam nañ ni ñuy toroxloo digganteeg suñu borom xam nañ ni ñuy jaamoo suñu borom xam nañ ni ñuy seq digganteeg suñu borom kon toroxlu googu mën nañ ko def te defaale leen ko waaye ñaan giit mën nañ koo def te defaale leen ko ndax ñaan moom ñëpp lay jariñ Serigne Touba ba muy ñaan irham jami ala wala la wax mbindeef yëpp la wax garab yi lépp luy dund rek mi ngi ci biir jami ala wala jooju nga xamante ne moom la Serigne Touba kon su ko defee rek mbokk yi nun ñëpp nañ taxaw dimbali leen ci xel dimbali leen ci xol dimbali leen ci jëf dimbali leen ci kàttan dañ leen dimbali ci lépp loo xamante ne luñ mën la rek fexe ba saafara si nga xamante ne jàngoro ji nga xamante ne moo fi nekk rek ñu fexe ba saafara ko a ah, ah, fi ñuy gën a insister rek mooy loolu ñu waxoon moom ci daayira yi daayira bu nekk na ko bàyyi xel ndax ku nekk bokk yi am ga ci sañ-sañ te wallaay la sim giñ naa ne ku ci ku ci mënoon a jot suñ mun taxaa ba tàgg ko ci da koy rafetlu ndax xam na ne daayira looloo ko tax a jóg ku ci mënoon a jot keneen koo yor sa daayira sëriñ it xam na ne sa daayirab sëriñ ba nga yor wóor na ko ne loolu moo ko gën a moo ko gënal boo ci tàgg woon sa sëriñ yi sa da lay wax ne la lii nga def kat lu ma rafetlu la kon bokk yi eh, xaalis yi ci daayira yi xaalis yi ngeen jotoon a dajale ba denc koy kees xaalis yooyu toog leen yéen ci seen biir ci yéen daayira yi ngeen génne ko dimbale ci askan wi nga xamante ne ñoom ñoo tumuranke ndax feebar bi kat doonul loo xamante ne dañ koy daal di faj ci benn weer wala ñu faj ko ci ñaari weer waaye xam nga ne mbokk moo xamante ne tëdd nga ci biir kër lu mat ñetti weer wala ñeenti weer yoo xam ne liggéeyoo te nga bàyyi fii kër Sénégal bàyyi fi jabar bàyyi fii doom te la nga daan yóbbante par weer loolu la ñuy xaar ngir mën cee dund te ñu wax it ne feebar bi am na fii ci Sénégal am ñoo xamante ne ñoom itam ñi ngi boleku ci ci wàllu kon wàllu économie ba nga xamante ne mënuñoo génn kon xam nañ ne nit ñi li ñu ittewoo fi ñu toll nii bari na ginnaaw nit ñi li ñu ittewoo bari na nag nañ seet nañ seet ndimbal loo xamante ne wax dëgg yàlla li fi jotoon na dajale xaalis ci daayira yi li fi jotoon na dajale xaalis ci nangam su ko defee ñu dajale ko weer wu dee ñu seet luñ ciy jël kenn ku ci nekk tey soo amee kër fi Sénégal bu fekkonte ne dañ la fa ñaari junni sax ñu yónneel la ñaari junni su fekkente ne da yor kër da yor foofu suñ mënee dem ca supermarché ba def ay espèces andil la ci sa biir kër nga mën cee dund ba keroog ngay mën a génn wax dëgg yàlla day doon loo xamante ne xam naa ne mooy gënal sëñ te mooy gënal xalifa sëñ Tuubaa yi fi nekk te mooy gënal mbo mboolem sëriñ si fi nekk xam naa ne loolu mooy gën a sedd seen xol moo leen di gën ndax jant bu ngeen demee ba dëgëraat rek réew mi dox jant bu ngeen lompañee nag réew mi lu ci bari day lompañ ndax wax dëgg yàlla man damay wax ne immigration jamono yii nu toll li nga xamante ne ñi ngi ko yëkkati di ko teg ci seenu der yayoowuñ ko bokk yi yayoowuñ ko bokk yi jamono yi nga xamante ne yi nga xamante ne ñi ngi ko yëkkati journaliste yi média yi réseaux sociaux yi di ko yëkkati di ko teg ci deru muudu muudu yi muudu muudu yi de yayoowuñ woon wax ju mel ni bokk yi ndax taxawu nañ réew mi fu taxaw nañ seenu askan fu ne taxawu nañ seen famille fu ne taxawu nañ seeni njaboot fu ne taxawu nañ seeni sëriñ fu ne ndax lépp lu fi taxaw tey jii ba nit man koo xool wala nga mën koo xemmeem wala nga dig ci teg bët wala nga di ci am yaakaar buñ ca génne woon loxoy muudu muudu yi la cay des du bari kon wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ ay góor yàlla lañ yoo xamante ne dañoo bàyyi seeni ndey bàyyi seeni baay nekk ci àll bi di liggéey kon tey jant buñ demee ba am lu tege ci seenu kaw jant buñ demee ba am lu ci seenu askan jant buñ tegee ba am lu tege ci seen i jëmm muy aw naqar aku tiis nun ñëpp war na noo maase gàddulu leen ko yanulu leen ko teg ko ci suñu ndoddu te àndandoo ko ñoom dalal seenum xel ba keroog muy jeex tàkk bokk yi waaye tey man de li may dégg ci réseaux sociaux yi tiital na ma lool tiital na ma lool te wax dëgg yàlla muudu muudu yi nekk ci àll bi day mérito wuñ mérito wuñ lu mel noonu mérito wuñ ay wax ju ñaaw mérito wuñ ñuy teg ci seenum dal jar ndax koo xamante ne maa ngi dégg ñu naan muudu muudu yi nañ toog bu kenn ku nekk ñibbi si Sénégal buñ fi indi feebar buñ ko wàll muudu yi muudu yi bëgguñoo wàll kenn feebar bokk yi ndax muudu muudu yi bañ feebaree yàgg na feebar mooy nga bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi sa rakk bàyyi sa jabar bàyyi say doom ngir lan ngir bëgg a sowe sa famille boobu tax nga dem Italie nekk fa di sacrifice di tëdd ci bitti di fanaan ba bëccëg ñu di la saaga di la toroxal di la wax wax ju bon lu ñaaw lu nekk ñu di la ko wax ngir ne di wane ne réew moomu dëkkoo ca ngir lan bëggoo lu dul sowe say njaboot yi nga xamante ne say waajur lañ te nekkoon ca àll ba nekkub àllu Sénégal bii nga xamante ne mbay mi amatul dara amatul nawet yi amatul dara amatul koo ci gis seen waajur ya nekk ci bitti foo xamante ne boo xoolee néeg yi di seen la ci biir néeg yi seenu naqar mayeetu leen seen waajur yi di fanaan ci néeg yu mel noonu mayeetuñ seen néeg yi seen waajur yi di tëdd ci lal yu mel noonu mayeetuñ seen waajur yi ñuy tumurankee noonu ñu def fi sacrifice dem Italie wala ñu dem France wala ñu dem Angleterre wala ñu dem Allemagne difa daan seen doole nga xamante ne da nga gis koo xamante ne day liggéey ba weer wi dee du ci jël sax ab dépasse bu yóbbu këram day jël lépp yónnee ko ay waajuram Tuuba ñu dundee ko lekk ko faj ci seeni soxla faj ci seeni itte moom mu fàtte boppam bokk yi kon mérito wuñ liñ leen di wax nañ leen delloo njukkal nañ leen encouragé bokk yi nañ leen dëgëral nañ leen ñaanal ba sunu borom génne leen ci njàqare yi ñu nekk bañ mën a taxawu njaboot gi ndax ñoom jant buñ lompañee njaboot gu ci bari danañ lompañ bokk yi ni nan dello siwaat xel yi li may wax toujours rek feebar bu mu tiitloo nit ñi ba tax kenn ku ci nekk di salit bu feebar tiitloo nit ñi bokk yi ba tax kenn ku ci nekk di salit nit ki yaakaar ne bu demee bu julli jee sax faatu yaakaar ne bu demee bu defee li ko yàlla doon digal sax dana ci mm. jëlee feebar faatu yaakaar ne muudu muudu bi mu bàyyi woon fii mu doon ko dundal tabaxal ko kër tuba di ko joxeel ab dépasse léeg-léeg mu ne sama càmmiñ dafa am nangam léeg-léeg sama nangam léeg-léeg sama nangam ñu jël seen alal di leen yónnee di tëdd ci biti di tëdd ci marché yi di tumuranke jaaduwul ñuy teg dara ci seen kaw yooyu kon nit ñi nañ dellusiwaat te xam ne feebar jërul salit feebar ak faatu bokk yi wuñ dara feebar ak de jote jotewuñ dara fii senegal da nga fi gis ku tëdd fanweeri at te ma nga ca tal ba mu tëdd ba léegi am na ci ñoo xamante ne mësuñoo tëdd mësuñoo feebar bis bu nekk ñoo daan jël seen alal di ñëw di ko seet si di ñëw diko dimbale tey faatu nañ wàcc fi kookee kon bokk yi nañ xam ne feebar ak faatu jotewuñ dara na yi dellu siwaat gëmaat yàlla te xam ne yàlla lu fi nekk moo ko fi indi lu tegu ci kaw jaam ñi suñ borom ko teg ci kaw jaam ñi su ko defee ñu toroxlu ci kanamam ndax suñ borom wàcc waatul ñu jàngoro jooju mooy gën kenn ku nekk di firfiri moo gën kenn ku ci nekk di wax kenn ku ci nekk di wax loo xamante ne ëllëg si biir da nga ko réccu te bu boobaa dana fekk réccu dana wees kon nit ñi nañ dellu siwaat nañ delloo siwaat xel yi nañ delloo siwaat seen i delloo siwaat seen bopp te xam ne ñi nekk ci àll bi ñoom rek lañ fa nekkal ñi nekk ci àll bi ñoom rek lañ fa nekkal ndax su fekkonte ne yow képp la woon mbubb mi ngay sol dàll wi ngay sol li ngay lekk jëralu la génn dem ci àll bi di tumuranke ñii tumuranke ci àll bi ñëpp seen famille sowe seen way wayjur sowe seen i baay sowe seen i doom sowe seen rakk yu jigéen sowe seen njaboot moo leen taxoon di dem ci àll bi di tumuranke ji kon bokk yi ne xel ci détuwaat te wax yi fi nekk yëpp ñu di ko rafetal amul kenn koo xamante ni ci muudu muudu yi da nga jóge ci àll bi mu wóor la ne yor nga feebar ngay ñëw fi ngir bëkk ko wàlli nit kenn xelum nit wessu na lool seeni xel wessu na lool ñom ci seen wàllu bop li ma lay wax ne la bañ défé sacrifice yag nañ sacrifice moy nga bayyi sam réew dem ci réewum jambon di rank di tëdd ci biti di jël ay liggéey yo xamantene liggéey yi risque la man nga ci liggéey fukki at dé man nga ci liggéey juroomi at dé man nga ci liggéey juroomi at juroom benn at dé kon koku bam sacrifice ci faatu yag na bokk yi sun borom diko ko musal mu yor ay njabotam ñuy dem di sàmm réew mi ñuy dem di di di taxawal daayira yi di di di toppatoo sëriñ si di toppatoo wayjur yi di toppatoo lépp demul ludul ab feebar boo xamante ne coronavirus la nit ñi jox ko benn martaba jox ko benn daraja bokk yi barki démb rek la ñu amoon fii Ebola bokk yi te moo gën a gaaw a rey barki démb rek la ñu amoon fii choléra ba jeexagut moo gën a gaaw a rey barki démb rek ba léegi ni siburu saa ngi Sénégal di rey ba léegi di continuer di rey léegi bokk yi yooyu moo gën a tiis fopp coronavirus na xam coronavirus wàlle bi lañ na moo gaaw waaye feebar yee ko gën a bon fopp ndax feebar yee daa rey te teewul nun ñëpp noo ngi doon ànd ak yàlla di ko seere di ko téye kon nan wëlbatiku nun ñëpp delluwaat ci yàlla àndaat ak yàlla gëm yàlla gëm yàlla gu wér gëm yàlla gu wér te jàppale sunu njaboot gi nga xamante ne ñi ngi ci biti jàppale sunu njaboot gi nga xamante ne ñoo ngi ci diaspora bi jàppale leen ñoom ñëpp ba kenn ku ci nekk mën a nekkaat ci sa bànneex kenn ku ci nekk mën a nekkaat ci sa ca la nga nekkoon ba mën a jàppale say waajur mën a jàppale say njaboot xam naa sëñ Modou su fekkente ne am na ku bëgg a barkeelu rek su ko defee mën nga koo bàyyi mu mu mu mu mu barkeelu ah, tey la kasu rajo ñu ci ñu ci itte waaye ku ci bëgg barkeelu rek feeg ñuy jeexal su ko defee mën na cee barkeelu ñu ni ñëpp di sant yëpp nag mbooleem association yi nga xamante ne eh, taxaw nañ ci ba liggéey bi mel nii mu mel ñoom ñëpp ñu ngi leen di taxaw sëñ Pape Demba Ja ñoom eh, sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Pape ñoom wiyee ak ak ak ak mboolem Sénégalais yi yor foofu ay association sëñ Aliou Ndiaye ñoom diaspora ak mboolem ñi ciy wax yëpp guddeeg bëccëg di joxe ay information ba di dalal xelu nit ñi eh, di di di di jàppale nit ñi sëñ Mourtada Gueye ñoom nekk fële ci janwa ak ñëpp nga xamante ne ñi ngi jàppale xeet wi di jàppale italiens yi ba italiens yi seen xel dellusiwaat ah, ñoo ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne na ci daayira yi nag gën a participer wu bu baax a baax ndax daayira yi ñoom mën nañ cee participer wu ci beneen participation boo xamante ne mooy ëpp doole sax association yi ndax ak Italie xam nañ ne daayira yi ñoo ëpp doole association yi kon dayre yi nañ ci jàppaat bu baax a baax te waxtaane ko kilifa yi fi nekkit nga xam ne ñibbiseeguñ Sénégal feebar baa ngi leen boole ki foofu nañ waxtaan ak daayira yi jàppale leen accompagner leen xamal leen ne leen moment bii ñu toll kat fi ñu toll nii moment bi wax dëgg yàlla nekkul ne dara dafay génn di dem ci bitti waaye Italie li fi nekk nañ ko dimbalee xeet wi fi nekk nañ ko dimbalee sénégalais yi boole wu ci biir kër yi nañ ko dimbalee jullit ñi bloqué wu ci biir kër yi nañ ko dimbalee italien yi bloqué wu ci biir kër gi ni nga xamante ne noonu la ko Caritas di defee ñëpp di ko defee ni ko Caritas di defee nga xamante ne dana dajale yi nga xamante ne nit ñi dañ ko nar a yàq wala ñu nar ko bàyyi ci mbedd mi dajale spaghetti yi dajale ceeb yi dajale diw yi dajale matériel yi nga xamante ni yëpp doomu aadama da koy soxla woo di ko dimbalee nit ñi daayira yi nañ tàmbalee def noonu ndax fi mu toll réew mi soxla woo na ko jullit ñi fi nekk soxla woo nañ ko sénégalais yi fi nekk soxla woon nañ ko étranger yi fi nekk soxla woon nañ ko kon nag daayira yi ñoom itam nañ jóg taxaw ci loolu waxtaan ci loolu ñoom xamante nañ ci seen biir parce que ñu ci bari dañuy ñëw daayira ñi commune yi ci boppam xamante nañ société sénégalais bi xamante nañ xam nañ ne fi ñu toll blocage am na am na ci ñoo xamante ne liggéeyatuñ ñu ngi toog ci biir kër yi ndax lan li ko waral mooy fa ñuy liggéeyee mayetuñ leen ñu àgg fa même bu dee certificat la sori na am na ci ñoo xamante ne seen di taa jot naa am ay cas bañ tëj ko am na ci ñoo xam ne seen dita amul kaa waaye matériel yi ñuy liggéey sax matériel yi manqué na bañ yóbbu leen kaasa nga xam ne te ne liggéeyatuñ am na ci ay sénégalais yo xamante ne dañ doon dem ci baar yi di jaay mënatuñoo génn kër yi dem ci baar yi ndax heure bi heure sedd la nit ñi ci baar wala ci piyaasa yi wala ci métro bi foofu rek la ñuy jaayee mayetuñ kenn nekk fa kon ñooñu tey te nekk ci biir kër yi bokk yi daayira yi war nañ cee xalaat taxaw wat ci ñoom ñëpp muy daayira yi nekk France yi nekk Amérique yi nekk Allemagne yi nekk Danemark yi nekk Suède yi nekk Angleterre daayira yëpp war nañoo taxaw tey jii fi ñu toll ñuy organiser wu fexe ba sowe sénégalais yooyu fexe ba sowe sénégalais yooyu ndax buñu leen sowewut kat jeneen jàngoro ju ëpp doole jàngoroy corona mën naa ñëw ci seen biir te bu boobaa dana naqaree saafara bu boobaa dana naqaree faj kon nag bokk yi na ñëpp taxaw ci liggéey yi ba nga xamante ne sénégalais yi ci boppam kenn ku ci nekk ci ñoom bu feebar bi jàllee danañ xam ne kenn ku ci nekk taxawaay bi nga waroon a am pas-pas bi nga waroon am doole ji nga waroon a kenn ku ci nekk joxaat nañ la ko ba doole jooju am nga ko kon bokk yi nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp te xamante ne luy dem rek la ndax balaa bu ñëw la te nii mu ñëwee noonu rek lay demee te ñun ñëpp jant buñ demee ba suñuy xel dellusiwaat rek ndax fi mu toll mi ngi tàmbali di wàcc ndànk-ndànk ndax euh, Chine ma ngay tàmbali di wàcc am na dëkk yoo xam ne ñu ngi tàmbali di wàcc gis nga jant bu demee ba xel yëpp dellusiwaat rek ñu xam ne Allahu moom rek moo mën lii lii moom rek a ko sañ a taj tey li dey ci Italie ñuy wax ay quatre mille ay quatre ay quatre mille nangam ñoo xamante ne ñoom moom rek leen sañ a rey kenn sañu leen a rey étranger bu ko defoon italien bu ko defoon mara de Italie yàlla rek ko sañ amul keneen ku ko sañ ku dul yàlla te ñoom ci seen bopp médecin yi wayjur yi ñoom ñëpp dem nañ ba xam ne lii am yàlla rek ko sañ amul keneen ku ko sañ yàlla ginnaaw xel yi nag mi ngi dellusiwaat ñu xam ne lii yàlla rek a ko sañ kon su ko defee léegi rek suñu borom dàq ko feebar bi ni mu naawe woon dikk noonu rek lay naawe delluwaat su ko defee nit ñi dellusiwaat ci seen jàmm xam ne yàlla moom rek moo am kattan goo xamante ne lam leen doon wax ne leen bis bu bëggee faagaagal adduna ci diir bu néew rek mën na ko cee def ñëpp gëmaat ne yàlla kon mu faagaagal adduna lu ko yombal mën na ko def ci ay secondes yu néew ndax ginnaaw jàngoro joo xamante ne moom moo ñëw te jàngoro ji ñëw di sew loo xamante ne ci ay machine lañ koy xoole bokk yi machine yi ngi koy xoole sax ngir nga gis ngir nga xool ko ci lu jafe muy lu tuuti lu dugg ci askan wi woo xam ne bu duggee mën naa jaxase xeet bi yépp bokk yi kon kenn ku ci nekk xam nga ne suñ borom moom rek mooy borom kàttan moom rek fi nekk moom rek moo mën lépp ginnaaw moom rek moo mën lépp nag bu xeli nit ñi dellusiwaatee ci loolu rek suñ borom bam xam ne moom kat xam na ne jaam ñi lottu nañ te xam nañ ne moom rek moo leen yilif su ko defee jàngoro yépp dana leen ko saafaraal dana leen ko dana leen ko dana leen ko fajal kon nag bokk yi seen jotaay bi di ajmal lii rek lay indi ñu bëgg ko waxtaane tey thème bi amul woon thème dañ doon waxtaan ci jàngoro ji nga xamante ne moo fi ñëw rek nuñ war a dalalee nit ñi organisation yi luñ war a def luñ ci war a sàmm luñ ban doxalin lañ war a doxalee wan yoon lañ war a jaar ban melokaan lañ war a mel su ko defee ñun ñëpp ñu mën cee mucc te nag ñu respecté lépp li nga xamante ne docteur yi nga xamante ne ñu seq adduna bi te seen xel màcc ci lii ñu bàyyi woon seen lépp ñoom itam dem jàngi ko ba seen xel màcc nañ leen di bàyyi xel di bàyyi xel ba denkaane yi nga xamante ne ñu ngi koy denkaane denkaane yooyu nañ koy respecté te di ko warmaal kenn ku ci nekk ci ñun soo génnee sa kër boo ñëwee nga raxasu ba set fonk sa bopp defar fi ngay nekk fexe ba lépp lu nekk ci sa yaram nga di ko nettoyé loo mën di jëfandikoo ci alcool yi ñuy digle nga di ko jëfandikoo su ko defee rek ñu dàq jàngoro ji ñaan ci yàlla yàlla jëlee ko fi suñ ko defee ñun ñëpp dana nekk ci jàmm di siyaare sëñ ji di sekk nekk fële ca Suisse moom itam bis bu nekk muy diglu émission bi bu digloo ba noppi joxe ay xalaatam euh, kon ñi ngi koy sant di ko gërëm moom itam di sant mboolem auditeurs yi nga xamante ne ñi ngi ci biir yëpp ñu koy waxee rek ñu dalal xel yi nag dalal xel yi bokk yi ndax dalal xel yi mooy euh, ñu ko waxee lii suñu borom moom rek ko sañ a tege te moom moonu nu ko teg bu nu ko tegee ñu ñaanaat ko rek te raxasaat xol yi kenn ku ci nekk yéene sa bopp lu baax kenn ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom kenn ku ci nekk li nga yéene say njaboot nga yéene ko sa morom su ko defee ñun ñëpp nu maasewaat ci eh, sukk ci kanam suñu borom toroxlu ci kanamam te ñaan ko su ko defee dalalaat xel yi te bañ cee génn yenn wax yoo génn wax yoo xamante ne bu ëllëgee dañuy rus wala nuy sëgg feebar bi jëru ko mun demoon bay engagé day jëru ko su ko defee rek niñ ko doon waxee noonu te suñ gëm-gëm la boo xamante ne dañuy wax fii ci biir Sénégal it feebar bi ñu daw ko ni ko état bi santaane ni ko gouvernement bi santaane ñu di ko daw waaye it man dama ciy waxaat loo xamante ne sama waxi bopp la moom nan fexe ba jaamukaayu yàlla yëpp bu mu tëjee bokk yi nan fexe ba jaamukaayu yàlla yëpp bu mu ndax dansé la bu wér dansé la bu wér bokk yi fexe ba jaamukaayu yàlla yëpp tëjee moom erreur mënu ko gën a weesu ginnaaw nañ moytu sàmmonte li docteur yi wax problème bi tey mooy am na Indonésie nuñ def noo xamante ne xalaat bu baax la ñëpp a ngi koy gis ci jàkka yi fexé nañ ba nit ñi di julli ci juma yi mais bu ñuy julli ci lañuy soré waye ñom ñepp kenn ku ci nek bala ngay dugg ci bir jakk ji da ngay tak ay gants da ngay tak masque su ko défé bo takké masque tak masque ñu téré joxante loxo yi su ko défé kenn ku nek mën nga julli ñu ñaan yalla toroxlu ci kanamam yalla dindi jangoro ci waye nak bokku yi tej jakk yi tej juma yi tej béré bu ñaanu kay yalla yépp mom dalul am xel ci am réew dalul am xel ci am réew té nako ñepp moytu bokku yi dalul am xel ci am réew na ko ñëpp moytu ñu baree ngi wax gir tiit nañ te jàkka yi nañ joxe autorisation nañ def nangam ak nangam bokk yi suñu aada yi bopp yi di cosaan yi nga xamante ne ñoo ko moomal suñu bopp lu mel ni màggal yi ñu mel ni yii ñu sos yëpp moom manis na ko bàyyi bu jamono neexee ñu defaat ko ndax jamono neexa tax ñu di ko def mooy toogadoo dajaloo toog lekk ñaan loolu moom jamono ko laajoon ñi ko def waaye nag béréb yi nga xamante ne bokk yi lu mel ni julli ajjuma yi lu mel ni yoon yi nga xam ne moom dong lañu dese fi mu toll nii ci bis yoo xam ne war nañ ko nañ ko organiser defar jàkka yi andi fa yi ñuy saafara wo andi fa yi ñuy fajoo obligé nit ñi ñuy wut ay masque di ko takk ko am masque ñëw julli si su ko defee même bu fu fukki nit daje woon ñu julli toroxlu ñaan yàlla yàlla saafara jàngoro ji waaye tëj bérébu jullikaay yëpp moom wóorul ci am réew wóorul ci am réew bokk yi wóorul ci am réew jàngoro ji jàngoro ju bon la manis na ko daw waaye nag nañ ko organiser bokk yi manis na ko organiser ndax jumaa obligé wuñ ñëpp ñu dem ci jumaa waaye tey mënoon nañ ne dëkk bii kat di Daaru Muxti wala dëkk bii di Touba wala dëkk bii di nangam ku bëgg a julli ci jumaa ja na nga wut masque yi nga xamante ne mooy défendre masque yooyu na nga ko takk ba noppi bala nga dugg ci jumaa ji dañuy gis nga takk sa masque ñu door la bàyyi nga julli ci ci jumaa ji ñu organise bu nit toogee fii ne nit toog fee ne nit toog fee buñ jullee ba pare ñu infecté jumaa ji infecté loxoy nit ñi su ko defee nit ñi delluwaat ci seen i waaye tëj béréb bi jaamukaayu yàlla yëpp ne ñi nañ toog ci seen kër dalutum xelte kilifa diine yi bokk yi nañ seetaat li ñuy def bu baax a baax bala ñu ko accepté bu baax a baax nañ wut ay matuwaay jant bala ñuy àgg ci tëj ginnaaw àggaguñ ci tëj bokk yi àggaguñ ci moment tëj jumaa yi àggaguñ ci àggaguñ ci feebar bi am na mi ngi am ay benn benn mi ngi génn nit ñaa ngi koy am mais ak protection yëpp ba pare suñ defee protection yëpp te mënu ci dara nag bañ àgg ci tëj su ko defee ñu door a tëj ay xëy

امين امين ني لاي زياره باخ نيومي تام زيارتي بيسوب شيخ محمد الفضل بي نتي نيان اك لونتي جامو يالا اك لونتي جانغ تي القران اك الخصائد اك استغفر الله اي استغفار يال نكو يالا فولال شيخ محمد الفضل فولال نكو نين ني تاميت اك بيب جوليت آه، با آه، تاوت جي ني نك آه، موي بلا بي يالا واتكو تي جخه رسول الله صلى الله عليه وسلم amin amin amin sant bu baax a baax ci sa taxawaay wax dëgg yàlla nee naa ko soññee beeg ak yëg beeg yépp yëg nañ ko wax dëgg yàlla alhamdulilah alhamdulilah daal boo boo seen xel dal ñun moom suñ xel daal na wax dëgg yàlla comme ni ma la ko waxee woon keroog duñ dégg duñ déggee rek ndax mbir dafay nekk loo xam ne bu amee da koy am noo koy jàngate mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. jàngat mooy moom ñun yàlla ak yonent bi sax moom kenn du ko wax ndax daa boo ko daan wax ñun la dooma fi fekk wala <laughs> duma fi toog euh, ñun ku tedd gi seen maam fàggul nañu lépp wax dëgg yàlla mm-hmm, mm-hmm. waaw mm-hmm. lépp doon na ko ci ay xasaay bind ko ci ay fu nekk bind na ko fa bàyyi woon ko fa dañ ciy doog a jot nag nii wala di ko doog a dund nii wax dëgg yàlla te njàngat mi ñu ci am tamit njàngat la moo xam ne fii mi ne moom comme ni nga ko waxee yàllaa ko fi andi moom moo ko fiy jëlee. Mm-hmm. ñun ñoo ci xoolaat suñu bopp nag saat suñu bopp xool xam fu toll tamit ci suñu borom ak suñu gëm-gëm ak suñu suñu li bëgg ci suñu diine ak suñu ak suñu njaboot. ak suñu nekkin fi tamit. nan nan ci mën a gisee man nan nan ci mën a jàngat njàngat moo xam ne bu lii weesoo man mën ak am beneen coppeeku coppeeku daal. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw. comme tamit comme ni nga ko waxee noonu ci wàllu daayira ak ak association yi yëpp fii tamit euh, xam naa ne Italie bi yëpp ñu ngi koy doxee même ñun Genoa gi tàmb nañ ko fi ndax tamit bu mm. nekk fi nga nekk moom euh, da ngay ñaan yàlla xëy na tamit yàlla bu ko bu ko tuddee boo fa waree dee da nga fay dee boo fa waree wopp da nga fay wopp boo fa waree loo fa lu fa war a am rek te yàlla di ko tege dala ko fay dal waaw ba tax na mm. tamit mu ngi ci seen biir tamit nga xam ne tamit ñoom ñi nga xam ne fii mu toll nii wallahi alazim bërki démb directeur u San Martino muy hôpital Général bu mag bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko daf maa woo ni ma Mourtala ñaan leen yéen bu ngeen ñaanee suñu borom dana ko nangu mhm, mhm. Ah, directeur u San Martino nga xam ne kon ñoom xam nañ ni lii jaaxal na leen jaaxal boo xam ne fii mu ne comme ni ko waxee suñu borom dong moo ko mën a teggi mhm. Mhm. waaw leneen li ci des nag comme ni nga ko waxee woon rek nan mobilisé wu tamit comme ñoom tamit ci ñoom la nekk fii tamit wax dëgg yàlla di fi liggéey di am ay addi euh, ñu xajal ñu suñ góor mhm. yàlla Cheikh Mouhamadul Mok nga xam ne lépp xeexaloon nañu ko ba mu yomb fi lépp daan ñu wax tamit bu ngeen nekkee ci dëkk da ngeen di doxe ni ñuy doxee di demee ni ñuy dome topp seeni loi ak li ngeen xam ne moom ngeen fi am daale jàppale ko dolli ko ci li fekk Euh, hmm. moom it doon dànkaafu ci loolu tamit euh, ñun tamit ba tax na loolu tamit fii mobilisé wu nan di def ay di laaj hmm. yi nga xam ne yi nga xam ne daan jaay wala ci na mënuñu seen bopp tamit wala mën leen dimbali tamit ñoom it ci seen hôpital yi nga xam ne ñoom it jaaxle nan ndax affaire bi ëpp na leen doole waaw hmm. loolu laa ci doon euh, am lu ma ci doon yegg du ko ci dugal moom xam man wax ji moom danga ko dul mane bu baax a baax mais daal moom wax dëgg yàlla dëgg la yàlla na ñu yàlla jàppale rek yàlla na ñu yàlla jàppale wax dëgg yàlla yow it yàlla bàyyi la fi sàmm la ba nu liggéey bi ñu bëgg ak ci sëñ Touba lépp ñu ànd ko yow di la weer ba lay yore wax dëgg yàlla ba njaboot géej ci dara ngay rasul salaam daal amin sëñ Mortala amin sëñ Mortala amin communication bi ñu yore tamit ñuy jàpp ci tamit comme ni ñu ci hmm. waxee dañ ko doon waxee jaayante ki tax ndaw tax li ma wax sëñ Modou Ndam am nañ ci rëy boo xam ne tey jii nuy média yi hmm. Sénégal yi doon tey jii war nañ koo doxee way war tey jii war a leeral uh, tubaab yi xam ne tey jii kat ñun am nañ fi benn uh, um, uh, loo xam ne ñu ngi ciy communiqué di ci di ci yéen nit ñi déglu di ñu bàyyi xel ñu man cee hmm. am benn appiment buñ ci jàpp boo xam ne day day day gën a day day gën a dox ba faaw rek daal euh, loolu daal bëggoon naa ko cee mm. tamit ñu jàpp ci ñi nga xam ne ñoo ko bokk ñëpp daal la gën cee jàpp bu baax a baax waaw mm-hmm. tamit ci kàddu yi tamit di leen ziare waat bu baax a baax di ngeen ziare ñu waa daaru ak njaboot bi ñëpp njaboot bi tamit ñëpp ngi leen di ziare ñun ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax wax dëgg yàlla barakallah barakallah mm-hmm. barakallah jërëjëf jërëjëf sëñ Mourtala jërëjëf macha allah intervention bi rafet na bisimilah amee na am na keneen ku nekk alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi maa ngi lay siyaar Mbàkke. yàlla na yàlla nangu siyaar te boole na ko ñun ñëpp. maa ngi lay ñaanal jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira fan wu gudd ànd ak wér ak wér warsak. amiin amiin ten bokk yàlla na ko yàlla defal nun ñëpp. amin amin amin sëñ bi yàlla na nu yàlla musal ci balaa bi. amin amin yàlla na ko fi yàlla jële tu mu nu fekk jàmm amin amin amin sëñ bi daal rafetlu na sa wax ci lool lool lool lool wax dëgg yàlla alhamdulilah ba nga tàmbalee bu tey daal sama xol bi dafa set guy yàlla xam na ko alhamdulilah alhamdulilah waaw wax dëgg fii mu ne daal li nuy teg ci Sénégal yi nekk bitim réew moom ñaaw na moom ñaaw na Sénégal moom Mhm. sëñ bi am am na ci ñooñ am na ci ñooñ li nuy wax waaye am na ci ñooñ wax dëgg yàlla tuwaar fàkkal la mhm. ah, am na ñooñ moom li nuy wax wax ju ñaaw la moom ndax nit booy wax naa nanu toog fa nu nekk lu nuy mel ni barmoli maabo loolu wax ju ñaaw la mhm. man dégg naa ku wot ci rajo dik ko fa wax man dama jàpp ne kenn dawul kuy dem Sénégal rek sa heure dem Sénégal moo jot ngay dem ay kenn dawul man mm-hmm. man de tiituma raafuma man de waa Sénégal laa gën a xalaat ni fii man mm-hmm. waa Sénégal laa gën xalaatal ni fii mm-hmm. kon itam bu lii bu ñëwee moom kenn ku ne war na cee wax sa wax ju rafet ndax wax dëgg ni ko waxee ñi nekk bitim réew lu ne def nanu ko lu nekk def nanu ko foo ci Sénégal moon nga ni lii ku ñi nekk bitim réew ñoo ko fi def Mm-hmm. kon mm-hmm. yoyo ni ñuy wax ben kaddu bu ñaaw dinu ko jëmalé mm-hmm. nu nit yeyo nu di leen ko wax ben kaddu bu ñaaw di leen ko jëmalé ndax nu ñepp ben lañu kon nanu bok dina wara bok nun ñepp ñaan yalla jëlé ko fi mon nako yalla nako fi jëlé ci barke muhammad barke borom towa ci barke mam cheikh anta bakke man lool lay ñaan yalla nako fi yalla jëlé mu baynu mu dem baynu fek jam nu koy nit at yu bare bare bare amin amin ah. amin loolu dal, loolu dal moo motta ñaan waaye yow wax yu ñaaw yi dal wax dëgg mhm. yàlla am na ñu senegal moom am na ñu ko fa mon lol mhm. fi ñi koy wax jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen ànd ak fii du nu wax loolu dëgg la dëgg la mhm, waaw seen bu nekkoon fi yàlla xam ne kenn du ne nanu toog foofa mel ñuy mel ni barmoliment bu kon du ko waaye waaye waaye waaye nag looy wax rek nay loo xam ne lu rafet la waaw wax dëgg yàlla man daal loolu laa amul ci lu may wax daal waaw Sénégal mhm. googu daal yal na ko yàlla gën a aar ci barke Muhammad barke borom Touba yal na ko gën a aar aar ñun ñëpp nag amin amin jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf participation bi rafet na lool moom ak sëñ Murtada ah, niñ ko waxee noonu rek la demee bokk yi muy loo xamante ne dafa am loo xamante ne bu amee rek faawu nit ñi ànd ak seeni xel faw nit ñi dal ndax kenn tegu ko kenn bokk yi kenn tegu ko kenn lii am nii ci àdduna bi koo moo ko teg nit rek tooñ ko kenn tegu ko kenn yàlla rek ko teg jaamam ñi yàlla rek ko teg jaamam ñi yàlla képp amul keneen ku ko teg jaamam ñi te moo tax ma ne jamono jii bokk yi te dul jamono yeddaate moo tax am na ci yu bari yoo xam ne duñ ko dugal ci biir émission bi waaye bu feebar bi jàmm bu feebar bi jàllee des dafay doon loo xamante ne lu ñuy waxtaane waat lay doon lu ñuy waxtaane waat lay doon bokk yi ndax wax naa ko jamono yee ci ginnaaw ñun ñoo ngi yoroon suñu làmmiñ di wax ci rajo yu guddeeg bëccëg di wax ci rajo yu guddeeg bëccëg boo demee ci youtube yi boo demee sëñ Mahmoudan Mbacke Basirou Anta Niang da nga gis émission yi soo demee ci ñeneen bari na ñu ci doon wax fan yi yëpp ñu ngi doon jàmbat lu bon yi ci àdduna bi bàyyi góor jigéen ñi ñuy def leen neex bàyyi franc-maçon yi ñu def lu leen neex bàyyi arabisant yu yàqu yu ñuy saaga kilifa yi di leen wax wax ju bon kenn ku ci nekk yëkkati seenu làmmiñ di def ay vidéo di def yu bon yoo xamante ne yàlla bëgg ko ñu di ko tere ñëpp di dàkkaafu ñëpp kenn nanguwuñu wuyu état benn état bu nangu bu nangoo participer ci li ñu doon wax amul tey ñu dem ba suñu borom jéppi ñëpp andi loo xamante ne lu metti la kon nañ ko muñ te toroxlu delluwaat ci yàlla rek tey émission bi fi mu toll jàngoro ji ginnaaw dafa tas fépp te metti du jamono yeddaate waaye nag bu ko suñu borom dindee dis na waxaat ne état yi niñ leen di doyloo ba bis buñ demee ba àgg ci ñu leen war a bàyyi nangam buñ ko waxee ñëpp bàyyi ko ñoom it nañuy doyloo nit ñiy wax ci rajo yi te xam ne li ñuy wax njariñul ñëpp kese boo gisee ñu doon tere problème mu góor jigéen njariñul adduna bi képp boo gisee ñu doon tere njar affaire franc-maçon yi njariñul adduna bi kese boo gisee ñu doon tere arabisant yu yi jàpp kilifa diine yi nit yi tasawuf di leen saaga bu dégg bëccëg bañoon lii képp tax ñu doon ko def waaye ku yor sab rajo góor jigéen bu yor sab rajo di ñu saaga ba suba hmm, du ñu wàññi dara bu franc-maçon bi taxon fee di xeex nit ñi ci seen i pas-pas yi wàññi dara waaye nag dafa am loo xamante ne yàlla moo ko bëggut ginnaaw yàlla bëggu ko looloo tax ñu doon wax naan di joxañ di encourager état yi di leen wax ne leen lii yàlla bëggu ko teel leen ko arrêté ndax lii lañ doon daw xaw mu lóot mbokk yi yéen ñëpp ko xam nit yonent yàlla lóot ya bañ demee bay def affaire góor jigéen gis ngeen la yàlla tegoon ci seen kaw kon nag du jamono yeddaate moo tax sax tem boobu duñ ci dugg ba mu ëpp waaye nag dis na ko waxtaanewaat kon li ci am solo rek mbokk yi nun ñëpp nañ dellusiwaat comme ni ko suñ mbokk yooyu waxe sëñ Mourtala waxee ko keneen waxee ko kon ñoo ngi leen di gën a sañ gën a soññi yéen daayirey Alaaji Malik yi nekk foofu yéen daayirey sëñ Tuubaa yi nekk foofu yéen daayira yi nekk foofu moment bii ñu toll man wax naa ko sañu maa digle ne nañ def nangam sañu maa tere ne nañ def nangam ndax moom ma daayira yi sañu maa digle ne nañ def nangam ndax moom ma daayira yi moom ma mbooloo mi samay xarit képp ci nekk ma bokk ak ñoom di dund waaye daal sama xalaatu bopp ginnaaw daayira sëñ Cheikh Mbacke daf ne woon ñi ko soxla woo te nekk foofu buñ ko soxla woo sax nañ leen ko waxuma laat nag ñoo xamante ne dañoo nekk ci feebar bokk yi jamono jii ñu nekk jamonoy feebar la nit ñi tumuranke nañ ñi ngi foofu ci réew mi buñ yem ci association yi buñ yem ci nit ñi sax di dajale lañ am akas néew di ko dimbalee mbokk yi fi nekk la ca daay ca keesi daay rey nañ ko génne dimbale ko mbokk jullit ñi foofa ndax fi mu toll ñoom ñoo ko gën a yayoo di ko indi fii ñun ñooy seeni kilifa bu ngeen ñu joxee ñu def ci suñu kër bu ngeen ñu joxee ñu lekk ndax la ñuy dunde yeneen a koy jox yàllaa nu booleeg yéen ngeen ñu jox lu ñu dunde waaye bis bu dëgg amee buñ ko ragal a wax man mën na maa xëy suba dugg ci biir dëkk bi dem li jënt ci dépasse bu ba lekk amul benn jafe-jafe waaye ki nekk foofu ñu boole ko ko ci biir këram dëmul génnul génnul ci biir kër ga bokk yi wax dëgg yàlla fi mu toll nag buñ dee wax moom moomu ko gën a yaayoo ñu di ma ko jox man. moom ñoo ko gën a yaayoo ñi di ma ko jox dem te demee ba lépp del ci waat mu nekkaat ci léppam nag su manee nee si ci man agsi ci man waaye fi mu toll yaakaar naa daayira yi moom ñi nekk ci diaspora bi ñi nekk Amérique ñi nekk France ñi nekk Allemagne ñi nekk Espagne ñi nekk Italie wax dëgg yàlla fi mu toll daayira yi ñoom ñooñu ko gën a yaayoo ñoom ñoo ñu ko gën a yaayoo bokk yi kon dayre yi li ngeen jot a abakas néew organiser leen ko ndax organiser leen ko su ko defee bokk yi tumuranke foofu ñu dimbale leen ci association yi ñoom itam liñ am nañ ko dimbalee dimbalee ko bokk yi nekk foofu nañ ko dimbalee bokk yi nekk foofu ndax wax dëgg yàlla nag su fekkente ne yàlla rek la ñuy waxal fi ñu toll ñoom ñoo ñu ko gën a yayoo te ñoo ko gën a ittewoo kon nañ ko dajale ñoom ci seen wàllu bopp ñu seet nuñ koy dimbandikoo ñu dimbandikoo ko léegi ci kanam rek suñu borom dàq lépp jamono neexaat day yi dellu fañ nekkaatoon man di jébbaliwaat ci seen sëriñ man di jox seen sëriñ lu ñu leen bëgg a jox ndax jamono rek la te jamono ji léeg mu jeex te bu jeexee it balaa moom bu ñëwee bu jeexee réew mi day gën a neex rek ndax suñu borom moo bindee noonu moom fu mu indee ak ak ak ak ak jàppandal fu indee ak fu mu indee jafe jàppandal la cay teg fu mu indee jàppandal jafe la cay teg te ginnaaw andina na fi mu toll jafe-jafe la cay topp lu neex rek lay doon kon nan dalal xel yi ñun ñëpp xam naa ne foofu la ñuy tëjee nañ dalal xel yi ñun ñëpp bokk yi yéen sama mbokk yi nekk foofu it man samay doom a ngi fi ñu ngi foofu Italie googu samay njaboot a ngi fi njabooti kaneen a ngi fi njabooti ñeneen a ngi fi yéen ñi fi nekk nekk ci daay suñu njaboot ngeen suñuy rak suñuy doom suñuy baay suñuy mag suñuy ñoom rek nekk Italie kon yéen tam dalal leen seenum xel ni ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nga feebar bi jërul gis nga feebar bi jërul daw di dem fen toog leen suñ borom léegi suñ borom saafara ko suñ borom mi mi leen bind xam ne yéen a ngi itali xam na ni yéen a ngi Italie te mi ngi leen tiim di leen sàmm Sëriñ Tuubaa mi ñu leen booleel wala Alaaji Malik mi ñu leen booleel wala Baay Ñas wala Baay Laay comme ci man di doon sëb sëriñ xam na ne yaa ngi béréb sàngam xam na ne yaa ngi béréb sàngam te ñi ngi leen di ñaanal di leen protéger ngeen génn ci ci jàmm Sénégal gii mi ngi fi mi ngi faneen mi ngi faneen kenn ku ci nekk fa nga nekk dalal fa sam xel te toog rek xaar fa yàlla toog ñaan torox lu ñaan ci yàlla su ko defee yàlla dàq ko ñun ñëpp ñu dellu ci lim nekkoon ñun ñëpp lim de jërul kenn di jërul sénégalais bi naan mi ngi Sénégal naa daw dem dem dem dem Mauritanie parce que amu fa naa daw dem Gambie ndax amu fa ndax dalal fa sam xel te toog rek xaar fa yàlla toog ñaan torox ñëpp lañ jël jërul kenn du bëgg jërul sénégalais bi naan mi ngi senegal coobare ya. nah, mbiri machine rek la àgg nañ dalal fa sam xel te toog rek xaar fa yàlla toog ñaan torox dalal seen xel ñëpp dalal seen xel jërul rëg rëg yi jërul def dara yéen ñi nekk am ngeen def dara ndax ngi ci kër yi ni ma ko waxee rek bu leen topp télévision yi ñuy gën di jaxasi seenum xel télévision bu jeex nga ba information Facebook bi bu jeex nga jàpp beneen bu jeex nga jàpp beneen dañuy mujj sax dañuy far dof loo leen ndax kenn ku ci nekk nam ko déggee ak nam ko xalaatee noonu rek la koy waxee noonu rek la koy waxee su ko defee muy gën di jaxase xeli nit ñi ngay gën di dégg lu la ci gën a naqari ginnaaw ñu ngi ci kër yi rek te saafara si mooy ñaan yàlla mu daaneel ko am nañ jot na nekk ci kër yi liñ naroon a nekk ci télévision ba lañ naroon a nekk ci information yu bari yi su ko defee ñu nekk ko ci xaside yi nekk ko ci alxuraan ji durus ñaan yàlla su ko defee yàlla daaneel ko suñ ko defee rek ñun jullit ñi buñ ko defee ñun ñëpp rek léegi yàlla daaneel lépp kon jërul topp ñi nga xamante ne dañoo nekk ci média yi bu tayee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu envoyé euh, euh, vidéo bi seetaanal vidéo bi lu am importance la diw mi nii la ko déggee diw mi nii la ko gisee diw mi nii la koy xalaate diw mi nii la nangam nangam bu yàggee rek mën naa jaxase bopp yi te tiit googu ak stress boobu rek mën naa doon loo xamante ne luy gaañ ñi nañ fexe ba dindi stress bi ci suñ bopp nun ñen nun ay julin lañ bokk yi nan xam ne ab nattu la yàllaa nu ko teg nan gëm ne ab nattu rek la yàllaa nu ko teg te heure bu ko teggee mu jeex ñu gëm ne yàlla it da koy teggi ñu gëm ne yàlla da koy teg su ko defee bu boobaa rek dañuy daal di am jot lañ doon nekkee ci télévision bi jël ci bu bari ñu nekk ko ci dollu xasida ba lañ doon nekk ci télévision bi jël taa bu bari ñu nekk ko ci dollu jukki alxuraan ba lañ doon nekk ci télévision bi jël taa bu bari ñu nekk ko ci dollu wasifa ba jël kurus yi ñaan yàlla su ko defee yàlla saafara ko bokk yi loolu rek moo nu ci mën a dimbale amut leneen lu nu ci mën a dimbale kon buñ ko topp jërut tamit tiit jërut di daw di dem fenn kenn ku ci nekk fa nga nekk toog ndax fa nga nekk yàllaa ngi lay gis te xam na ne yaa ngi fi. taalibe ba nekk Italie jullit ba nekk itali mbok ma nekk Italie suñ borom xam na ne mi ngi Italie mi ngi Milan mi ngi ci néeg sàngam te xam na ne feebar sànga ko fa am suñ borom moomee rek moo ko ciy musal amul keneen ku ko ci mën a musal. ndax daw du la ci musal génn du la ci musal def dara du la ci musal toog leen te dalal xel yi ñun ñi suñu njabootan fi ñëpp seen i njabootan fi yéen ñi fi nekk ñëpp suñu njabootan fi kenn ku ci nekk fa mu nekk na nekk te gëm te dalal am xelam te xam ne kenn mënu ko koo teg ku dul yàlla te fa nekk yàlla nga koy gis su ko defee léegi ci kanam suñu borom saafara lépp kenn ku ci nekk mën a dellu jërul rëg-rëg yi sama mbokk yi nga xamante ne ñi ngi tiit di jëli oto dugg oto dem ci jëru ko jërul bokk jërul gaañ sa bopp ci àll bi jërul jël ay oto dem ci frontières yi di daaw ak di def nangam di gaañ sa bopp di dugg ci ay risques yoo xam ne risques yi ngay dugg da ngay gaañ sa bopp te jëru ko jëru ko bokk yi jëru ko suñ boroom a ngi lay gis te mi ngi lay sàmm te mi ngi lay protéger seeni kilifaa ngi leen di gis te mi ngi leen di protéger suñ mun taxaa ñaan na kilifa diine yëpp ñaan nañ am nañ ci yaakaar ne balay yàgg léegi suñ borom dàq ko ñun ñëpp ñu delluwaat ci suñu coobare kon nan dalal xel yi dalal jëmm yi te kenn ku ci nekk fi nga nekk rek nga dalal sam xel fii ni tëjee fen rek rek mooy loolu ñu waxoon léegi yéen ñi nekk ci réewi tubaab yi te réewi tubaab yi lot ci ku leen dimbale jàpp leen leen lu ngeen am ci seen doole lu ngeen am ci seen kàttan lu ngeen am ci seen xel mu rafet lu ngeen am ci ay ñaan jàppale leen ñoom itam bañ génn ci ndax adduna bi bu ñenn muccee ñi ci des muccu rek kenn muccagul faaw ñëpp dañuy bokk mucc kon nag lii la seen mbokkum taalube Mahmoudan Mbacké moom Serigne Bassirou Anta Niang indi woon doon ko waxtaanee ak di ñaanal sama mbokki immigré yi nga xamante ne man a lu dul ñoom awma lu dul ñoom dund naa ci ñoom dund ci seen biir yàgg ci xam li ñuy daj àndandoog ñoom ci coonay daayira yi àndandoog ñoom ci coonay màggal yi àndandoog ñoom ci coonay dimbale nit ñi xam li ñuy daj ci àll bi li ñuy daj ci àll bi xam naa ko wallaay la siim muudu yi li ñuy daj ci àll bi ku ko génne woon ci dëkk ya nekk dëkk ya nekk dëkk yoo xam ne dëkk yu ndóol la kon barakallahu yàlla na leen yàlla barkel ci seen njàmbaar ci seen jom ci seen am ful fulla jooju nga xam ne bàyyi ngeen seeni i bokk bàyyi ngeen seen i bàyyi ngeen seen lépp kon fu ngeen man di nekk dalal ci leen seenum xel te xam ne sëñ Touba ngi ànd ak yéen kilifa diine yëpp a ngi ànd ak yéen te fa ngeen di nekk sëñ Touba dana leen fa fekk protéger leen woon nam leen musale woon ba fii nu toll déggagun ci lu bari ci sénégalais bu ko am wala bu ko amut wala bu ci gaañu wala bu ci lot ba fii nu toll te déggagun ci lu mel noonu yal leen sëñ Touba gën di protéger noonu di leen gën di sàmme noonu di leen gën di aare noonu ba lépp del ci jàmm di sant di gërëm ñëpp di wax salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ba dimanche ak allah ya